jërë ngeen jëf barça wala barsaq ginnaaw ñi jël gaali looco yi di mbëkk yoonu géej gi wutali bitim réew l'observateur xëy na dem seeti ñiy defar gaali looco yi li mu gis mooy defarum gaal gudd yi ñu toll métier la mu dox ci réew mi bu baax a baax ci defarkati gaali looco yi waa l'observateur dajal am na ko ko ci wax ne bu lépp aju woon ci moom immigration clandestine bi du jeex léegi daanaka juróom-benn weer ngi liggéeyul ci dara lu dul yett ay gaal gaali looco yi ak li ñuy jaar am nay defarkati gaal yu yi ne bu dee gaal jël ñaari téeméeri nit fukki million ak ñeent lañu koy jaay bu dee gaal guy jël 70 passager gaal googee ñoo ngi koy jaayee juróom-ñetti million gaal yi loo co yeeg li ñuy seer seer taxul mu découragé waa ji di Tidiane Fall Tidiane Fall l'observateur nee nañu ab convoyeur la boo xam ne jël na yoonu géej gi ñetti yoon ngir bëggoon a yóbbu ay nit Espagne waaye amu ci benn yoon boo xam ne moom Tidiane Fall dem na ba yegg Espagne Tidiane Fall ne wala observateur yoonam wu mujj wi mi ngi jënde woon gaalam juróom-ñetti million jënd ñaari moteur juróom-ñaari million carburant lépp fukki million ak juróom-ñeent te génnul Sénégal ndax alkaati yi ñoo yëg opération bi dem si siir matériel ba ci Popenguine waaye nee na nag ak xalaatul muy toog ci réew mi dem rek ñi sës rëkk ci xol bu jeex ndax courant bu seet bi ci réew mi Vox Populi nee nañu am nañu jóg ci ñoom ba taxaw ci tànki Senelec lancé nañu ab pétition boo xam ne lañ ci jublu moo di ñaawlu naqarlu jéebaane njëgu courant beeg ni mu seere ci réew mi rawatina ci jamonoy tàngaay ñi def pétition bi Vox mi ngi ñuy xamal ne danañu yóbbu benn ca direction générale bu Senelec danañu yóbbu beneen nit ca médiateur naan maison de vie di kër goog jigéen gu amee cancer war a faju si si ndakaaru amoo foo dëkk amoo foo dal boo ñëwee man faa dal ngir faju li ñuy faj di woppi cancer journal lañ fa ak journal témoigné moom la ñu xëye journal lañ fa jox kàddu gi docteur Fatma Guenoune bu Liska ak docteur Diop ñuy wax ci tolluwaayu cancer du sein ak cancer du col de l'utérus ci réew mi Fatou Marie ak Ndey Ami ay doomi réew mi la ñu yuy dund ak woppi cancer journal témoigné xëy na leen joxata mu njëkk ñu di fa jooytu coonaak jafe-jafe ak ñuy dund ci feebaru cancer bi leen dal ak paj mu seer mi mu àndal ñu Sud Quotidien ubbi tey jàng tey gi ñu bëggoon ci ubbi tey école bi yéenekaay bi mi ngi wax ne taq na suuf ndax mbir yi dañoo demee boor ubbi tey jàng tey élèves yu bari ñoom xëy toog seeni kër démb nga dem ci dëkk bu ci mel ne Matam Sud nee nañu foofee ñàkki jàngalekat moo tax ba rentrée ba dafa gàll góose ay bâtiment yu màgget ay écoles yu inondé ak élèves yuy vacances ba léegi journal L'As ne nañu moom la gis démb ci réew mi ki ñu gis tey ci xët soxla ngir campagne agricole lu déwén bi Le Quotidien di ko dëggal ba di ñuy wax ne koppar maanaam ay suu mooy jur jàng ji état bi war a régler yéene état bi Le Quotidien nee nañu mooy dajale collecté téeméeri milliards ak lu teg teg ci taabal ji la si xëy teg ci xëtamu njëkk moom it ba koppar di Mamadou Moustapha Ba lu jëm ci solidité secteur bancaire traitu gerte gi ministre des finances yéene bi nee nañu joxe na ci assurance yu dalum xel moom mi tata bu ñu dogale woon ca yaraax sànni woon cay cocktail molotov lakk ko ba faat ca ñaari nit sur soine nañu ñuy jàpp na ñoo defoon jëf ju ñaaw jooje ñoom ñëpp nga ca kaso ba ñeenti nit lañu Alioune Gueye di footballkat ñu gën ko xam ci turu jéego Malick Sy dib mécanicien Ndiaye ja dib commerçant ca marché Sandaga ak benn livreur bu ñu naan Alassane Sow ginnaaw bi leen waa section recherche jàppe ñu téye woon leen diir bu yàgg police centrale ñu amoon it ay retour de parquet yu bari mujj nañ leen a yóbbu kaso ñu war faa toog xaar seenub bu mag bi nga xam ne lu mu def dafa gën di yàlla sunu borom def na démb lu yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëya tey mu di faatuk Momi Seck doomi Thione Seck ji ne woon soxnas Bougane Gueye Dany L'Observateur Le Mandat Point Actu Bës Bi lu Jour ak Rewmi Quotidien ñoom ñëpp a ngi xëy di ñu tàggee Mominatou Seck journal Tribune xëy ñul kukk akaw naqar leeruk Momi Seck gi rek ngay gis ci xët mu njëkku Tribune yéenekaay bi di ko tàggee di ko tàggu di ko tàgg yenu ay loxom sëgg sa ngéem di jooy Momi sekk mi ñu ne mën nga tëdd ca Yoff ca wetu baayam ba Thione Seck